ci gën a moom sa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

daanaka nag xarkaram plateau bi miin nga ko waaye nag tey dañ ci jële koo xamante ni daanaan la tuwaatkaal la ku sénégalais yi ràññee la ku sénégalais yi bàyyi xel la waaye tamit kuy bay waat ci li def la sénégalais yi bëgg ko mu nekk loolu ci jëngu mu doon koo xamante ne nag sénégalais duñ ko bay xel bu baax a baax a baax gëstanu tout simplement Pagaye Mbaye Pagaye waaw di jëm maa ngi lay fay di nuyu Saliou ah di nuyu waa Sunugal 24 yëpp di am contentement ci invitation bi Euh, donc di nuyu sama soppe yi fu waay mën a nekk rawatina ci diaspora bi. Mm-hmm. aussi di nuyu ñi ma àndal ñëpp di am mbégte bu baax ci dalal bi. Mm-hmm. ayca mi ngi noonu saa su nekk rek kooku la ñuy dippee bagaay koo xamante ni Sénégalais ràññee nañ ko bu baax a baax a baax ci buy xar bi nga xamante ni moom la nekk muy musique saa su nekk nag ni képp koo xamante am nga talent rek dinañ la daal di ma daal di nuyu sama baax a baax. kenn moom. di la bëggaat bu baax a baax di jaajëfal pagaay chers amis fidèles téléspectateurs mm-hmm. bonjour à toutes et à tous ou bonsoir selon que vous soyez en Afrique en Europe en Asie partout à travers le monde ñu ngi leen di nuyu tey amaan mbégte ak contentement bu mag ànd ak ki nga xam ne lañu naan pagaay nee naa la doon na ki nga xam ni c'est un jeune mm-hmm. mi ngi bay waaram doon na ki nga xam ni partout à travers le monde mënoo ñoo wax ni. Mm-hmm. bu génnee dara gars di ko challenge. mu doon koo xam ni gëm-gëmam mën-mënam moo ko moo ko moo ko may mu toll fi mu toll tey jii nii. boo musique. Mm-hmm. doo ko ci génne mm-hmm. waaw. ayca nitu guddee ngoog de. ngeen du <laughs> di ma la xam nga a jóg. gars yi n'est-ce pas guddi gi di di nelaw ñu ngi ci guddi gi di ko réglé. waaw noonu la demee nag. bu eh, sonn lu bëri ci lay xew ah. da koy am noonu la demee. parce que sama amul ay nelaw loolu ma jaaxal si moom. mbaa dafa mel ni ñun. artistes soirée soirée fu nekk lay fëgg moom xam nga jigéen mën a dugg pour doog a xam. ak information yi muy indi fii. waaw donc loolu loolu loolu da koy laaj. maa la ko wax waaw. Ah, kon mi ngi noonu euh, moom mooy Pagaye. Mhm. ci lu muy jaar dootul mhm. ngir dootuñu laajati Pagaye mhm. euh, nga def image yu rafet di image yi. Ah, ba sorte bi nga mujjee def clip bi gis nañ sénégalais di ko challenge partout ba ci am nga événement sax le 12 bu ma juum naa ko ci dañ koy waajal mais pare dafa am si loo xamante xew na dañuy tàmbale ci milieu showbiz mm-hmm. milieu showbiz bu ñu dee tàmbale ci moom dafay dañuy njëkk ci li nga xamante moom mooy xeex bi am ci biir milieu showbiz indil diw indil diw yaa ngi mm-hmm. comprendre mm-hmm. dafa mel ni léegi mbirum làmb na nga gisee milieu showbiz waaw bon pour man euh, showbiz bi am na am na am na am na loo xam ne jàpp naa ne buñ ci focaliser woo rek day day tardel suñu liggéey c'est parce que donc drapeau Sénégal lañu yor te pour man dañ ko war a yóbbu fu sori am nañ ay nawle boo xoolee euh, nigériens yi wala nga dem ci américains yi wala nga dem feneen ak feneen ak feneen donc da ngay gis que ne ñoom ñi ngi fexe seen drapeau dem ci kaw effectivement euh, xeex mayu leen ko jéem a wane seen talant wane ne xam nga ñun ñoo war a yëkkati drapeau bi mais boo toppee xeex bi rek da ngay dem bu fàtte yow lan moo tax nga dugg ci musique bi. Mm. donc pour man ah ñu gën a concentré wu ci liggéey bi par rapport. Mm. donc musique nag am na. Mm. dóorante ay code mais bon euh, dafa war a jaar. waaw waaw mu jaar fi mu war a jaar. c'est parce que am na loo xam ne bu demee ba am rek yàqu lay indi te yàq boobu noonu munoo xam fa muy àgg donc man pour man euh, ñu gën a concentré wu. jéem a téye drapeau bi yóbbu ko fu sori c'est parce que bon artistes yi ngay seetaan. ñu nekk beneen dëkk. ak fu ñu mën a nekk ci monde bi donc ay nit lañ ni yow. Mhm. bon li ñu fi ñuy yóbbu musique mën nga ko fa yóbbu. Mhm. donc mais loolu li la koy may mooy liggéey. ak gëm ne yow mën nga àgg foofu. dëgg la yaa. Mhm. tey jii ñan ngay gis xool leen. nga ni ñii bokk nañ yaakaar. Euh, bon tey jii nii man mënuma mënuma citer ne diw day yàq aar. c'est parce que bon kenn ku ci nekk philosophie bi nga am. Euh, peut-être am na sax loo xam ne amaana mën na nekk luy yàq aar du nit. waaw ndax boo seetloo lu mel ni réseaux sociaux bi tey. gis nga ne mu ngi defar lu bari mais mi ngi yàq nag lu baree baree bari. Mhm. donc foofu foofu laay foofu laay waxee mais bon. man li ma gëm ki ci nekk. Mhm. gëm ne lii liggéey la. Mhm. Euh, te dafa war a defar moom dafa war a toll fenn ëllëg. Mhm. donc kooku laay gis man pagaay mais kii yàq damay gis que ne toujours. après moom bon du mujj am du mujj am loo xam ne maanaam mujjatalam day nice quoi. yaa mu am loo xam ni. Euh, foofu laay ñëwee ci ba tey ci wàllum showbiz. tey jii nii peut-être ñu gis ci benn euh, label bi nga xam ni am na doole ñu gën ko xam ci suba teel. ñu jékki saa gis ñoom bàmbaali ci biir. Demba Ndiaye ci biir. ba pare maanaam mel ni genre concurrence boo xam ne tey jii nii diggante ñoom Wally Seck te jii ba nga gisee ñoom seen adhéré biir suba teel yow. lan nga ci jàngat de. waaw <laughs> waaw loolu li ma ciy tontu rek benn affaire la peut-être. ñoom jàppee leen arme est-ce que man li may li ma ciy gis rek lenn la peut-être ñoom loolu loolu la ñu bëgg loolu la ñu gis pour def ko mais bu loolu lépp weesoo ñoom ñoo bokk li ñu bokk. donc bon famille jàmbur nag ñoom euh, da nga cay wax lu rafet rek ndax lu mu yàgg-yàgg après ñoom ñooy àndaat seen biir peut-être liggéey moo tax ñu dem fa bu fekkee liggéey la ak lu mu mënti doon mais aar bi ñun ñëpp nañu jàpp ne ñëpp benn famille lañu. donc kenn ku ci nekk war nga am indépendance dugg fii dem fee wala comprendre nga mais man gisewu ma ko dara lu dul bu dee liggéey la ah, ah waaw bu doon yow da ngay dem man tey jii nii peut sax suba teel xam nga euh, maxtaar mi nga xam ne moo ko yor waxtaan ak man ci wàllu pour ma ñëw fa. Mhm. mais lépp loo gis rek xam nga mooy li ma la wax rek liggéey. boo demee ba ne liggéey dafa am ay affaire yoo xam ne dangay toog waxtaanee ko par rapport ak ñi ngi ko seqal pour liggéey ak ñoom. xam nga bon ñu nekk ci waxtaan boobu noonu mais tey bu ko yàlla sottiloon ma war a liggéey ak moom wala ma war a liggéey ak keneen ak keneen comme ni ko ñeneen ñi defee donc damay liggéey rek man liggéey moo fi bàyyaa ah. mhm. yaa ma ñëw di desandi ci li nga xamante ne moom nan nga gisee aaru aaru Sénégal mooy ça veut dire Sénégal nan nga gisee parce que jàpp lu Sénégalais war a mën a génnee la parce que mhm. man ci li ma gis sama mhm. question mooy xeex bi nga xamante moom suñu man xam nga moom laa doon tontu léegi. Mhm. dama ne xeex bi boo ci focaliser woo. après da ngay dem ba da ngay mujj jàpp ne loolu moo la mën a yéegal ci kaw te fekk na gaa a ngi liggéey di dem. donc nañu xool. Mhm. ku ci mel ni tey nigériens yi wala américains yi dangay ngay xëy jékki-jékki. Mhm. c' est vrai que ne dañuy defante ay cote wala di genre. mais fu mel ni Amérique da ngay jékki-jékki gis kenn koo xam ne dafa génn def benn it. it boobu noonu wër àdduna. dem fu nekk ci waaye Asie fu ne mu wër ko comprendre nga. kon tey jii nii ñun war nañ mën di xool ci ñooñu. topp xeex bi ndax man jàpp naa ne tey booy xeex. Mhm. waroo xeex ki nga dëkkal. dëgg da nga war a xeex ak keneen comprendre nga. Mhm. donc man philosophie boobu laa am. Mhm. ba tey di leen fàttali que ni ñi ngi toog ki nga xam ni moom lañ naan euh, Paga Mbaye nga def sa euh, dernière kii bi suma juumul. ndaatil mu wër àdduna. inspiration waaw inspiration bi nag xam nga ñun yàlla dafa dogal. Euh, des fois dañuy am ay programme moo xam xew bu ñuy joué di genre te euh, ndaateel mi ngi jóge foofu ci benn xew ndax boo seetloo euh, ay xale ñoo njëkk a fecc vidéo boobu mu génn tas si réseaux sociaux bi mooy booy taxawoon ci kaw kii bi noonu euh, donc benn xew bu ma doon tëgg sama benn jigéen boo xam ne Kiné Ndiaye la tudd mm-hmm. donc moom laa doon tëgg xewam après bi ma ko bi ma ñëwee nag dafa ñëw naturellement nag mm-hmm. bi mu ñëwee ñu inspiré ko bi ñu ko dóoree gis booy di ko fecc mm-hmm. après affaire bi commencé di def bruit bon ma ne pourquoi pas xaaral ñu enregistré ko jox ko Sénégalais si nangu na ko si yow <laughs> <laughs> dama ko naroon yóbbu police moo ko Abou Sall voilà <laughs> dama dama ñëw soirée am ne ko euh, ma yéeg rek ne ko nii Sidi damaa ñëw sama plainte laay di mun a ma nii non bàyyil mu sedd rek mais nag xam nga sant yàlla samay rakk lañ ndax moom su ma rakk la nekkal booy koy tëgal samay rakk lañu mhm. abu Sala mhm. ak Alsaan mhm. ak Abbas ak Mama Seck donc su may rakk lañu ñoom bi ñuy jógee Kaolack sax ci man la ñu ñëw xam nga bi ñu ñëwee ci man ba yàlla dogal tey ñu mën a dem ak seen bopp yàlla boole leen ñuy liggéey ak Sidi donc nag bu ñu demee ba tey nga gis que ne boo defee benn affaire du sax à dehors de Sidy rek da ngay gis que ne loo def rek da ngay gis ñeneen di ko reprendre di ko jouer affaire yooyu mais li am solo mooy ki koy def reconnaître ne lii diw moo ko moom xam nga. te ñoom reconnaître nañ loolu quoi. yaa ba ngay ci ba ci léegi ci mariage ak ko fa parce que Sénégalais ñu ngi leen fi gars yi nekk yaa ngi fa quoi. pourquoi pas Pagaye Mbaye ba léegi ci mariage yi ci tànn yi. non non non tànn biir a jouer. yi tamit bon rarement vraiment c'est parce que du du dara quoi. ndax mm-hmm. nit ku nekk tamit euh, am na ñoo xam ne say nit lañu. dëgg la donc yow ak ñoom am na foo jaar man dama gis que ne un des mm-hmm. fois même bu la yàlla tegee ci kaw. Mm-hmm. am na koo xam ne peut-être dooleem àggul fenn fii. te bëgg na nga bégal ko. des fois nga wàcc si fekk ko bégal ko après loolu wàññiwu la dara nga nekk ci sa yoon. mais day toll nag foo xam ne liggéey bi dalay ñett ba yooyu pour nga jouer ko mooy loolu. dëgg waaw peut nag ñu bëri duñu comprendre. comprendre loolu ndax xam nga fii ñu nekk dafa xaw a métti Sénégal donc nit kuy dem da ngay ñaan yàlla avancé mm-hmm. mais am na foo xam ne boo fa tolloo sa liggéey tënk la mm-hmm. donc peut-être nit mën na la woo sax di la sant euh, lu mel ni programme yooyu wala di genre mm-hmm. fekk nga nekk ci yeneen ndax liggéey bi dafa am feneen fu mu lay yóbbu yeah mm. mi ngi noonu euh, nee naa leen ba tey euh, il fait partie des artistes yi nga xam ni partout à travers le monde lépp loo xam ni génnee na ko day def it suñ déggee ni mu ni ko parce que am na ñu doon doon suba dañuy xëy génn ci réseaux sociaux yi mhm. maa génnee lii lan moo tax pour gën a am succès tu vois mais de ce fait ni moom mhm. am na entourage bu baax tamit macha allah mhm. mais des fois duñu leen gis yow ku ci mel ni ay ñoom Bass Thioung ñoom Samba Diarra parce que déjà sànq yéen yéen ko doon wax xeexerte bi peut-être euh, euh, warul ci biir mais moo tax des fois duñu leen gis yéen ñett peut-être kenn xewle ñaar ñu gis Samba Diarra ak ku ci mel ni mooy ñoom ñoom xaarim temps gaa yooyu si day am day gis de. ay Bass Thioung ay mais day am Bass Thioung bërki démb rek mi ngi ngénte mhm. donc maa nga fa woon donc képp kuy artiste mi ngi fa. Mhm. bu ñu amee soire noonu la ñuy def dañuy demalante ñun suñu biir. Mhm. Ah, li nga fi lim dañuy demalante suñu biir. loolu moom euh, xëy na nag peut-être des fois gars yi mën nañu gis que ne benn événement am tombeek gisoo Pagaye wala nii fekk na dafa jël engagement wu jàmbur voyage yi wala mu nekk ci leneen ak leneen mais gars yi ñu ngi demalante seen seen seen soirée mais mais man nag artiste yi ma si jaaxal mooy mooy ñi nekk ci musique xam nga rappeur mais yéen man gisuma ci seen ngeen préféré def ay duo lu tax loolu non mais man def naa ko ndax boo seetloo man ci suma carrière mm-hmm. li ma def ay duo bari na def naa ko duo bi ak Pape Birahim waaw def naa ko Abou Cubalo mm-hmm. def kook euh, El Hadj Kayta xam nga def kook euh, Aïda Samb sama premier morceau Aïda Samb laa ko defal mm-hmm. muy morceau ci mbux donc man am naa am naa esprit boobu ndax tey jii nii rek am na lu may waajal loo xam ne man ak sama frère Bass xam nga mhm. ñu ngi waaj benn affaire boo xam ne mhm. bu génnee incha allah gars yi dinañ gis que ne mooy loolu mhm. waaw mais man vitrine yi man je crois que ne lu baax la sax yow xam nga yow ça veut dire mën nga ko nangu mais dafa mel ni artiste xaw a rëy surtout man ñi nga xamante ne dañu xaw a nekk ci ci kaw ñi ngay jàpp ni ñoom dañu nekk ci a rëy di xaw a bañ vitrine bëgg waaw mais fii àdduna la ku dul toppe kenn du la topp peut être ki koy bañ tey démb nangu woon na ko di ko daw ci ginnaaw nit wala donc tey jii nii àdduna noonu la da ngay gis mooy li ma la wax rek. Mhm. artistes yu mag yi nga xam ne ñun dañ leen di dégg rek di leen gis ci écran bi. Mhm. ñu nekk ñoo xam ne international lañ des mhm. fois da ngay gis ñu def vitrine. yeah te loolu noonu leçon la pour ñun. c'est parce que musique dafa war di dafa war di boole mais warul tàqale comme tey jii nii man ak yow bu ñu defoon benn fitrine hmm. sama bénéfice la sa bénéfice la ndax say soppe après man dañu may dañu may cons hmm. ndax yow man it samay soppe dañ lay cons xam nga ndax man kon man pour man vitrine yi gars yi waruñu ko bañ dañu dañu war di ko def hmm. yeah waaw waaw ayca mi ngi <laughs> loolu am na solo trop <laughs> non il maîtriser na bu baax a baax. non <laughs> xam ne ñëpp daanaka euh, même bu dee gars yi ñu ngi ko doon baali mais bokkul jeunesse bi. bokkul jeunesse bi daanuñu ko doon baali. Mhm. presque mag ñi ñoo ko daan baali. mu mhm. Kéba Seck. Mhm. mu xëy gars yi naan paa bi. paa ñaaw bi. xëy na tàq. mu wane ni succès moom du wees moom. te jii nii ni jég si ay tàqu fër. <laughs> mais mérito na ko. <laughs> Kéba méritoon na ko li tax méritoon na ko mooy. Mhm. Kéba dafa yàgg gëm liggéey. aussi dafa yàgg ci showbiz bi. Mhm. comprendre nga. Mhm. Kéba dafa yàgg ci biis bi te olof dafa am lu mu wax ku yàgg ci teen baag fekk la fa. te Kéba lépp lu mu am ci musique bi méritoon na ko. waaw da doon metti Kéba joué na fu ne. muy joué muy metti soirée yi da li yàlla xam tey bu demee nii xëy na tey la suñu borom dogal mais soirée début day metti xam nga say musicien des fois nga joué ba pare ay quatre entrée ngay am cinq mhm. boo pare yaay làmb sa poos joxe ko léegi nag coono boobu mu doon daj di ko def te loolu la ko suñu boroom fay gis nga yàlla buur bu baax la mhm. euh, te li fi nekk lépp pour doomu aadama yi la mhm. donc boo gëmee sa bopp liggéey mooy loolu te gëm naa ne fi mu ko teg nii vraiment nag ah li muy musique neex na allah ambiance du sax non li muy neex na macha lu mu wax Wally waaw amul mbokk en tan que baayam. actualité la rek non man dañu dañu ma bëgg a yóbbu. <laughs> non mais loolu loolu loolu loolu loolu mënuma ci wax xam nga lu tax mënuma ci wax mm. man dafa am philosophie bu ma am mooy famille jàmbur famille jàmbur la ko ñu bàyyi leen ñoom seen famille la après fa ñuy mujjee mooy ne ñooy waaw yàlla na yàlla def jàmm daal ci famille yëpp yee dañuy potool ci douze bi ci ah, mm. dañuy ñëw ci actualité parce que actualité tey nag da nga fi toog pagaay mm. euh, parce que boo suñu garab dafay baax que ñuy waxtaanee actualité mooy ko boo gisee jeune boo xamante dafa nekk ci yoon ñu koy tudd ci yenn coow yi jàppal diw indil diw exemple Tida ak Bambaly nan la lay def. waaw euh, affaire bu bu bu boo xam ne la bi ma ko gisee. Mhm. ah man am na nu ma def. Mhm. ni ma def mooy. Mhm. man nag nit ku nekk ak ni la yàlla bindee. fi nga may gis nii bugguma di gis. fu ñuy fu ñuy fu ñuy defee nit lu ko metti waaw man noonu la ma yàlla bindee. waaw euh, sama choix la nag loo xam ne yàlla moo ko def ci man. du damay wax comme quoi que ne dama bëgg man sama gis-gis na ñëpp gisee noonu non non non li ne ci man laay wax mais man pour man ah euh, affaire bi li jarul woon muy àgg fii. pour mm-hmm. man xale bu jigéen bi soxlawul woon muy dugg ci réseau sociaux bi. Mm-hmm. donc di di génne. Mm-hmm. loo xam ne amaana kilifa yi waroon nañ ko mën a waxtaanee voilà. waaw ndax euh, Bambaali jeune la te wax dëgg yàlla xale la boo xam ne li muy def mun na ko. Mhm. xam nga tey nag am na loo xam ne bu dalee ci kawam. Mhm. Euh, jàpp naa ne dañu war a suturaalante. ndax àdduna loolu dafa am solo. moom lay wax nañu moytu réseaux sociaux bi bu baax. Mhm. di xawi sutura nit ñi. Euh, yàlla mi ñu saaka moom moo ñu njëkk a suturaal. kon nag ñun nañu suturaalante suñu biir bàyyi lu ñu lu xew ci biir kër yi wala lenn loo xam ne dañ ko war a def ak sutura ñu génn ko di ko wasaare ci àdduna bi ñi ci war a wax wax ci ñi ci warta wax di ci wax. Mhm. man sama philosophie loolu la. Mhm. donc nañu nañu moytu daal nañu moytu réseaux sociaux bi. Mhm. lu ci mënti am nag. coow bu nekk am na Sénégal. dëgg la waaw te coow bu fi mënti am après dañu koy waxtaanee. Mm-hmm. mais amaana nit ki mën nga def benn affaire boo xam ne peut-être. mën mm-hmm. na topp nit ki yàqal ko carrière am. ba bu subaa mm-hmm. waxuma moom pour mu jariñu ci. mais artiste boo gis wala leader boo gis ci kaw suuf. am na ñu topp ci ginnaawam ñoo xam ne moom daf ci war a tedd ñoo ñu war ci tedd. donc am na loo xam ne boo ko yàqee. yàqaloo nit ki kase. ñi ci ginnaawam tamit yàqal nga leen. dëgg la donc bàyyi xel loolu. juste avant juste ngay ñëw ci euh, euh, événement bi.

gis nañ foto yi. gis nañ euh, ñu ne kii mooy tànk bi ba nga gisee yi. Mm-hmm. yow xam nga ni <laughs> gëm nga ni moo juru ko. <laughs> waaw mais loolu man tey mënuma toog fii duma ma bàkkaaru c'est parce que man fekkewu ma. Mm-hmm. xam nga dama xëy rek gis comme ni. da mun ñoo nduroo xaw ma ay jëwat. non mais xam nga Sénégal. <laughs> frère nga rek fii da ngay da ngay da ngay dégg ay débat da ngay gis ay débat xam nga. toujours da ngay gis ay débat da ngay dégg ay débat mooy loolu mm-hmm. mais bon ak lu ci mënti ci am rek ah nañu ko rafetal mhm. ñu xam ne bon lépp ci nettali lay mujj mhm. donc man nit ñi ku nekk ak sa philosophie ah bi ngay indi da ngay dégg wax ñi ki naan lii kii naan lee mais li am solo daal pagaay ak melokaanam mhm. mooy maanaam ma li may wax daal lu ci mënti am lu ne rek nañu ko rafetal dañu wàññi réseaux sociaux bi nga xam ne dañuy génn di jël vie yu yi di ko ndax fii doomu aadama boo gis muy dox ci kaw suuf. Mhm. peut-être am na loo xam ne def na ko muy erreur am te tey jii nii buñ ko ko génnaloon ci àll bi du ko neex. Mhm. du neex ay mbokkam. kon nit ku nekk xoolal sa bopp ci loolu. Mhm. voilà loolu am pour wax ci euh, waaye na événement waajal le si événement bi fal ak naka la ak nu muy demee balaa ñuy ñëw ci projet balaa ñuy ñëw ci moment de divertissement bi. événement bi may waaj nag. Ah, parce que ñu koy dégg muy def buzz éphémère ñu ngi koy dugg si toile ñu ngi gis <laughs> affiche yi ah sénégalais yi ñu ngi koy commencé waxtaan di ko wàcc. Euh, te ñëwagul. waaw incha le novembre. Mm-hmm. Ah, guddi ambiance la ñu woote. fan lay xewee CICES. salle de l'unité africaine bi. Mm-hmm. donc maa ngi profité di ci woo àdduna yëpp di leen wax ne seen doom seen rak seen xarit moo woote. Mm-hmm. une première fois nga woote ci salle boo xam ne 1200 places lay def. donc maa ngi ci. mais ñun nag ñu ngi lay loolu yorante wuñ ko. mais nag xëy na <laughs> yow waaw mais xam nga compter boo gis ci benn lay commencé tey jii nii foofu. Euh, moom à part euh, à part grand théâtre moo ci topp moo ëpp mm. moo ay Sorano ak yooyu. donc bu ñu jigee foofu incha allah dañuy dem grand théâtre ñu waajal grand ñu waajal ko mais le douze daal ñu ngi woo ñëpp nañu ñëw ah, ñu teg ci loxo et puis nag di leen ci woo. Mm-hmm. ndax yéen yéen yéen yéen yéen lu ngeen lu ngeen teg loxo moo gën lu ngeen tegul loxo donc maa ngi leen ci woo woo bu baax a baax. Ah. incha allah incha allah. <laughs> mi ngi noonu. parce que dafa am loo xam ni dafa lëmbee àdduna bi. muy pagaay ak fecc katam yi parce que ñoom lu leen neex la ñuy sol sexe moom daanaka ñoom ñoo ci teg tànk. gis naa ci borom down yoo xamante ne. ah mais yow pagaay yi yéen sama noonu. non mais man daal Saliou man tey daal man sama xarit bi tey daal <laughs> may ma dara quoi. non mais man sama fecckat yi. Um, Sofia la moo nekk ci morceau bi nga xam ne mooy naka sa dugg daa donc bi morceau bi génnee dégg naa ay. xam nga. moom kay koo jaar dégg waaw waaw di nga dégg waaw di nga dégg ay jamra ne woon nañ ma jamra dinañ la woo. trop nag. <laughs> ma ne leen bu may dem dinaa yóbbaale ñu bari. c'est hmm. parce que sama clip li ci am moo am ci clip yëpp ah. donc dafa am lenn loo xam ne génération la. Hmm. mooy comme musique bi instant yi musique bi dafa ànd ak loo xam ne comédie la. Hmm. ndax clip boo gis léegi da ngay gis artiste bu mu mënti doon dinga ut benn comédien dugal ko ci biir wala nga ut ay lëmbalkat ñu nekk si di lëmbal. donc loolu du pagaay rek a ko fi def ñëpp ko fi def. lii la mais amul leneen ñiy fecc ci clip bu pagaay boo tàppee yeneen clip ñoom nga ciy fekk. mais comme vulgarité bi nga xam ni say des fois say li ñu sol. non mais mais man ci suñu culture xam nga xam nga man. Mm-hmm. man nekkuma koo xam ne maay réagir samay clip. Mhm. donc man li ma am mooy dem dugg studio concentré wu. Mhm. defar son ba mu rafet. su ma mënoon di tourner sama bopp clip du ma mhm. woo kenn di ko fay. donc dama dem ci nit fay ko ne ko defaral ma clip mu def réaliser mu réaliser ko ne ne ñii ak lii ak lii ba ci man artiste bi danaa ma nii ngay soloo. nii nga war a sol lii fii partie bi lii lañ koy defee partie bee donc lépp pour taalal liggéeyam mais nit ki doo ko fay mu lay liggéeyal nga conditionné. Mhm. ne ko lii ak lee donte que nag man maay artiste bi maa nekk ci kanam. Mhm. am na ci lenn loo xam ne duma ko seetaan. mais pour man donc li am ci sama clip. Mhm. moo am ci clip yëpp. ak ci soirée ak ci kii du moins euh, mariage yi ci xew yi. waaw gars yi moom même la ñuy soli est ce que pagaay tamit maa ngi jégalu xam naa temps bi xëj na ñu. mu romb maanaam li nga xam ne moom lañ naan xew yeeg yooyu noonu. waaw waaw waaw ñi ngi ci ñi ngi ci liggéey bi donc. ñaanal leen ñu waaw ñaanal leen ñu donc am nañ ci am nañ ci. Euh, am nañ ci liggéey buñ ciy def boo xam ne. Mhm. damay dem sox ba benn moment waaw daf may tënk. ndax noo dem am play bagu jàmbur wala dem play bag ko wala nga war a jouer ji benn dëkk jàmbur. après bëgg a ñëw di tourner di jouer. xew yeeg yooyu. donc day metti mais bon lu mënul ñàkk la lu mënul ñàkk nag faw mu am. donc dañuy xool rek nan la ñuy organiser arranger. Euh, yoonu pagaay ba nga xam ne. donc ku nekk di ci yëg sa bopp. ayca mi ngi noonu saa su nekk rek balaa ñu dem moment divertissement xam naa ni euh, artiste bu isolé la parce que mm-hmm. xam naa ni moom <laughs> yooyu noonu xam naa yooyu moom yaa ngi koy ko jox bii kay a xam naa ne ak biceps yow lay gën a jàpp quoi biir fonde bi non saa boo ko xoolee xam ne na waaw maa ngi maa ngi commencé dugg sax nekk naan ndox naan ndox daal di tëdd nelaw ayca noonu lay daal demee saa su nekk rek euh, lii nag dañuy dugg si moment de divertissement euh, question la barak tontu la mu bàyyi ki nga xamante ne moom mooy Saliou c'est moment de divertissement bi ayca euh, mi ngi noonu lii nag question réponse la tey jii buñ la doon laaj diggante sa xarit ak sa mbokk boo nga yi taamu bon nga ñuy wax sama xarit ak sa mbokk ak sama mbokk ci mais mbokk mooy xaritan ah. <laughs> mbokk mooy xarit mm-hmm. yow ñu ngi ma laaj benn lañ de mm-hmm. bu ma nee mbokk nee naa xarit bu ma nee xarit nee naa mbokk yaa mm-hmm. kan ngay xool fii Sénégal des déglu ko xam ni kii mën na dëgg-dëgg ci musique waaw ma déglu ko xam ne kii mën na maanaam bëgg nga franco bëgg ko yónni nanguloo Mm-hmm. yee lan nga ñu mën a wax ci dafa am don mm-hmm. bu ko yàlla mayoon mm-hmm. ndax lépp lu mu defoon mu nekk it nekk lu muy dem studio préparé ko soirée la koy woy génn àdduna yëpp di ko bégee dama koy bégee damay bégee Alioune Mbaye Nder moom it yàlla da ko may yee Sénégal aussi bari na ñoo xam ne fii dama leen di cons nag waaw papa Youssou Ndour Thione moom yeah mm-hmm. waaw boo leen dégloo rek nga xam ne ñun dañoo ñu topp ci affaire yi mais musique ñu déglu leen bu baax a baax. dëgg la yeah mm-hmm. waaw. tey jii nii euh, sa plat préféré. Hmm. maafe bëgg naa ko trop. <laughs> maafe. <laughs> pagaay célibataire la wala en couple. non du ma célibataire. Ah, marié waaw. polygamie wala monogamie benn jabar wala ñetti jabar. non si ñëw ma fi yooyu de. ah yaa ngi kon yaa ngi waajal <laughs> pas. Ah. waaw dañuy yokk xeet bi kay. <laughs> Eh, ah mais damay wax lu nekk sama eh. suba. Eh. du ma toog naan lii wala lee gannaaw suba gars yi dañoo mun vaar ah. dëgg la vaar yi dafa bari de <laughs> surtout sama copain bi dafa mun vaar quoi. loolu dëgg la tey jii nii dañuy tànn kenn ci nga xam ne peut-être mën nañu wax Bass Thioung nan nga gisee carrière am. daanaan la. Mm-hmm. daanaan la macha allah daanaan la te mi ngi koy teg fi mu ko war a teg mm-hmm. donc daanaan la daal yàlla na ko suñu borom defal jàmm. dëgg la mm-hmm. waaw. loolu am na solo trop avant sama dernière question. Mm-hmm. ma joxatool ba joxoon la téléphone bi tey jii. président décroché lan nga koy wax. président de la comme nii ah. moom mooy wax tegal sa nopp. ok waaw. Euh, décroché naa. waaw. allo salaamaaleykum waaw. maa ngi lay fay bu baax monsieur président waaw man de sama gis-gis ci réew mi mooy mm-hmm. ñu wàññi dund gi mm-hmm. jàppale eh, ñi nga xam ne mooy sénégalais yi ndax fi mu ne réew mi yëf yi jaxasoo na trop yow la yàlla dénk nga jiite mm-hmm. donc maa ngi lay ñaanal yàlla oyofal yan bi waaye maa ngi lay ñaan nga bàyyi xel ñi nga xam ne ñoom ñooy jeunesse bi aussi ndax bu subaa ñoom ñooy doon ni magi ëllëg donc message boobu laa amoon pour jox la ko merci beaucoup monsieur le président mm-hmm. mi ngi noonu loolu am na solo trop kenn ku nekk euh, sa life am na loo xam ne peut-être dund nga ko mm-hmm. benn histoire boo xam ni moo la gën a métti mm-hmm. boo ñu doon wax benn histoire boo xam ni dund nga ko sa àdduna boo xam ne moo la gën a métti loolu ban nga ñuy expliquer bon li ma dund suma life mu nekk lu metti bari na mais am na loo xam ne aussi saa yu ma toogee dafa nekk loo xam ne day répété di ñëw ci man. donc du lu ma du loo xam ne maanaam lu ma dund lu metti la. Mm-hmm. mais lu ma gis la loo xam ne tey jii nii bon mënu ma ko fàtte. Euh, dafa am benn jour ma toog suma kër. Mm-hmm. Euh, ñu woo ma téléphone bi ñu ma woowee ma décroché bi ma décroché euh, mu nekk liyaat naa bi nga xam ne moo nekk tëngéej fi ñu denc jigéen ñi. donc bi ma décroché mu ne ma pagaay mu ne ko waaw mu ne ma damaa fexe ba am sa numéro mais damaa mun fii benn cas mu ne ko yee mu expliqué ma ne ma dafa am benn xale bu jigéen boo xam ne biñ koy denc fii dafa ñëw ak euh, ëmb bu ndaw mais daf dañ ko fi téye ba yàlla def mu mucc fi donc nag comme yàlla dogal na ne euh, fii la muccee mm-hmm. donc dama ko dama ko bëgg ngénteel Mm-hmm. fii ci biir euh, prison bi donc mais li may yëg mooy daf la bëgg yow mm-hmm. donc yow daf la bëgg ma bëgg nag incha allah bu mardee mm-hmm. lépp loo jàpp nga bàyyi ko nga ñëw si ngénte bi donc bëgg naa fa teg benn genre son pour bu ñëwee rek nga bégal ko yee ma ne ko incha allah dinaa ñëw keroog man ak sama gars ñoo ànd après ñu dem bi ñu demee ma dugg bi ma duggee ma toog ñu waxtaan ak liy naa bi waxtaan ak moom lu yàgg mu expliqué ma xam nga ñu waxtaan foofu ni mu demee ku nekk ngi fi mag yee ngi fi xale yi affaire yooyu après bi mu nee ma nag préparé ñu dugg ci biir bi ñu doxee deux pas. Mm-hmm. ba ma dugg nag ñu bi ñu duggee ci prison bi am na ñoo xam ne dañ ma séen ci ci fenêtre yi. Mm-hmm. rek yuuxu. bon bi ñu yuuxoo mhm. maa ngi gis ne ñii ay jigéen lañu mhm. ñi ngi leen liberté bi demeewul noonu donc caabi féete na leen ginnaaw mhm. peut-être mën nañ daw ñëw mën nañ ñëw euh, vers jege pagaay mais ñi ngi leen baare ci fenêtre rek lañ mën a taxaw di mooy di yuux ak yooyu mais am na ci ñoo xam ne dañ leen bàyyi woon nag ñu génn donc ñooñu moom bi ñu ma gisee aussi def nañ réaction yoo xam ne bon xam naa ne seen xol neex na mais moment boobu man yëguma loolu li ma yëg mooy ay jigéen lañu donc ñu dajale leen téye leen fii donc keroog am lu lu ma yëg lu bari loo xam ne gaawul nag ngay gis pagaay nii muy tur euh, xéwal mais jour boobu laqatu naa xam nga. ndax dama xool ne àdduna moom xam nga dund bu sotteegul lu ne xaj na ci. effectivement falaa nekk yendu ak ñoom xam nga après ñu ñu nekk ci biir foofu daa di ma def playback mhm. keroog morceau bu ma bu ma génne rek def naa ko playback pour rek bégal leen mhm. mais gis naa fa ñu bari gis naa fa ku nekk gis naa fa mag gis naa fa xale gis naa fa lépp ma jàngaat ci àdduna nag xam ne xam nga mhm. man yàlla bind ma ma nekk benn ndaw boo xam ne jeune laa nekk ci showbiz kon tey jii nii man moomatuma sama bopp. Mhm. peut-être bu yàlla defee dem ba am ay nit yoo xam ne tey caabi féete na leen ginaaw surtout maa ñuy ay jigéenaa ah. mhm. te ku nekk xam na ni jigéen mooy sunu yaay. Mhm. donc bu ñu demee boo yàlla dogal mu mel nii ñu bëgg a gis sama jëmm ji man rek. xam nga. mu jaral leen tey jii nii ñi fi nekk di liggéey li may liggéey bari na mais yàlla dogal loolu suñu borom def ko bi ma demee foofu nag. bon loolu nekk na loo xam ne lu joué ci man la jour boobu noonu. Mhm. ak bi mu paasee. Mhm. ndax euh, waaw affaire bu doy waar la ci man mhm. quoi ba pare leer naa bi dafa dafa jàngale. ndax jàngale bi mu jàngale mooy peut-être ki fa nekk ba yàlla may ko mu am fa doom. amaana mënoon nañ ne dafa nekk ci prison bi donc dañu koy kii mais ay mbokkam sax dañ leen a woo amuñu accès sax pour accès ci fi ñu warul accès mm-hmm. mais def nañ loo xam ne wane ne ne moom yàlla da ko dénk mm-hmm. mais dafa war a sàmm ndax lu mu yàgg yàgg yàgg lu la suñu borom bi bis dina ñëw ñu mm-hmm. laaj la yow li ñu la dénkoon nii nan nga ko téye woon loolu moom lu lu lu ma lu ma marqué la quoi macha allah ayca loolu am na solo trop euh, defe naa ni euh, l'émission tire à sa euh, la nga ci wax ayca loolu moom moo dekkul moment de divertissement bi nga xamante ni entre Ful ak Pagaye Mbaye ñu koy jaajëfal baax vraiment kontaan nañu bu baax. ñoom daanaka tàggatoo bi jot na lan ngay tàggatoo téléspectateur waaw li may tàggatoo rek mooy am contentement bu baax. Hmm. le fait que ngeen dalal ma. Hmm. donc maa ngi ñaan yàlla na sunu borom def jàmm ci kër gi. fi ngeen bëgg a yóbbu kër gi sunu borom may leen ngeen yóbbu ko fa. Hmm. vraiment liggéey bi rafet na. donc man maa ngi toog maa ngi gis liggéey bi ngeen di liggéey. bu yàggul dara gis naa ngeen dalal fi ameccu waaw gis naa liggéey bi daal. yàlla defal leen jàmm ak sori. donc bu fekkee wax naa fi dara loo xam ne aussi luy déranger la maa ngi jégalu déglu ah bu baaxee ñu xam ne suñu borom la mm-hmm. aussi di béggee sama fans yëpp Euh, di leen jox rendez-vous le douze encore di leen wax ne nañ ñëw ñu may ñu doole. Mhm. donc ndax. Euh, waaw le douze novembre. waa si ses si ses waa si ses incha allah di wax ñëpp nañu ko waaj ñëw teg ñu loxo. Mhm. di gërëm suma gaa yi ma àndal nag xam nga. Mhm. béy di suma rakk mooy suma rakk la suma ménagère la. di gërëm baaba si ah. xaadim maam Bamba. suma xarit bi nga xam ne xaadim Diagne moom dafay sonn ci man. maa ngi koy gërëm. di woo ñëpp nag di leen wax ne nañu waaj Pape Abdou Cissé. Euh, Euh, jour Sénégal sunu fierté internationale bi donc moom maa ngi koy woo ci le douze ah, di wax ne incha allahu rabbi mi ngi noonu yal na yàlla def jàmm di ñaanal ñi nekk ci hôpital yi suñu borom defal leen wér ñu mm. dellu seen njaboot ñu caabi féete ginnaaw yàlla defal leen ñu dellu seen njaboot xam nga mm. yàlla def jàmm ci àdduna bi xam nga euh, waaw suñu borom defal ñu jàmm mm. waaw ñi réer ci réseaux sociaux bi yàlla gindi leen waaw ba ñu waaw c'est importance waaw ndax mi ngi xale yi dañuy dañuy xool réseaux sociaux bi te lu ne lañ ciy dajal dëgg la donc yàlla nañu yàlla defal jàmm merci beaucoup. ayca ñu ngi lay kontaanee bu baax yow fu Saliou lan ngay koy jaajëfal bu baax a baax euh, ñu gën ko xam ci Pagaye nee la euh, déplacé ko yombul wante euh, jaayante na def le tout ba réew mi la mën nañoo wax képp koo xam ni peut être mën nga ko fa dem gisee di jaajëfal tamit sa gars yi nga xam ne moom la ñu àndal képp koo xam ne yaa ngi toogoon di ñu seetaan maa ngi lay bëggee ki gën ci man muy euh, Modou kan mm-hmm. maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax a baax euh, doomu Mor kan di ko bëggee bu baax a baax Cheikh Ndiaye borom iPhone yi maa ngi koy jaajëfal mm-hmm. moom di la bëggee

rejoindre Ndeye. Ndeye waaw sama doomu baay. Ndeye Diop mooy seen moom mooy seen. service damaa ñëw mu raxasoon ma demal mm-hmm. ayca mi ngi noonu Dabakh service nekkee foofu sa Golf Sud nag seen numéro 77 la 516 88 41 77 516 88 41 ah mm-hmm. saa su nekk di jaajëfal Bigui di jaajëfal Dóor waar mi nga xamante ne moom moo nekkoon ci xarala gi saa su nekk di pivot de gauche di de droite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 askan bi kontaan naa Sénégal am na ndam ndax doomu réew mi la daal mi moo war li ko ko yore dégg jàmm waaw waaw def ko sa téléphone ni man waaw waaw KAPA suñu gan gi yegsi na kay kay KAPA ma kay KAPA ma moom sa bopp moom sa alal yombalal sa dund. Pour la première fois au Sénégal, le dépôt est à 0 francs, le transfert à 0% et le retrait à 0 francs.